ana waaj ana waaj loolu bu ñu faale loolu dama bëri ci jóg Thank you. Kabir, pose la question waay. ay empreintes am ci. Euh, législature bi nga xam ni moom la génn donc comme ni ko waxee ah, député wàllu yi kase ñoo des ci biir salle bi c'est des femmes aussi prononcé leneen bi mooy ñeneen ñi yëpp génn nañ coalition yi que ça soit bu Benno Bokk Yaakaar wala wàllu wala ak euh, Yewwi Askan Wi donc bu waree Sarr honorable député mi ngi leen di génn Adja Mame Diallo Thank you.